Nous sommes téléspectateurs chef de centre 1 sama Amadou Gueye la directeur de Gorom 2 alors euh, centre bi nous euh, euh, commencé vraiment ñi ngi sante à 7 h bon à 7 heures. commission bi yëpp teew nañu kenn manqué wu ci membre commission yi commission bi ñaar fukk lan ak juróom ñëpp teew nañu amul benn absent amul kenn ku ñëwul élèves yi aussi ñoom ñëpp ñëw nañu te ñëw nañu aussi ci euh, heure bu normal parce que huit heures pile zéro nañu épreuve yi bon bi ñu ñëwee également fekk nañ fi accueil bu am solo parce que li ñu waroon préparer centre bi yëpp fekk nañ ko fii numéroté nañ sali, yi nettoyé nañu saal eh, également élèves yi installé nañ leen ñun bi ñu ñëwee fekk nañ fi aussi benn comité d'accueil muy président parent d'élèves yi ak CGE bi ak seen mbooloo ñëw nañu accueillir ñu accueil accueil bu am solo ñu koy rafetlu torop non vraiment daal euh, pour le euh, moment man nañ vraiment épreuve yi commencé na te xale yi ñi ngi def sen examen dans les meilleures conditions conditions yu baax. Euh, yaakaar na ni am na li nga xamanteni moy moy ay dispositifs yi ñu wara a jël ndax yépp nekkoon na en place ngir ñu mëna dérouler examen bi ci anam bi nga xamanteni moy anam bi mu ci ay. Wow, dispositif bi nga xamanteni mom le la kilifa yi warona jël té nga xam ni nañu démb la veille yëpp mat na parce que bi ñu ñëwee moyen matériel yi nga xamante ne moom la ñu war a defee examen bi jox nañu ko def nañu aussi harmonisation waxtaan ak ñun ci lépp loo xamante ne moom la ñuy xaar ci ñun suñu taxawaay ba mu leer bon bi ñu ñëwee ci suba gi dajale na membre commission bi yëpp. waxtaan ci ak ñoom rendre leen compte mettre leen devant responsabilité responsabilités boo ñu doon aussi ay jàngalekat yoo xam dañ leen a ràññee tàggat tànn leen ci see ci seeni nawle ndax seen taxawaay indi leen fii ñooñu ñëw nañu def li ñu war a def ñu ngi ci centre bi lépp mat na macha allah. xam naa foofu rek wax ci li nga xamante ni moom mooy année scolaire bi ren ñu gis ni am na li nga xamante moom mooy ay gàllankoor ci ay mouvement dimanche yi nga xamante ni jot na fee am donc loolu noonu ndax tax na ñu réduire programme bi wala ci base programme bi yëpp ci la élèves yi nar a composé tey. waaw de comme ñun ñëpp ñu ko xamee mooy anne bi yëngatu woon na trop trop bari woon na yëngatu mais teewul ñun euh, ci suñu wàllu métier am na expérience boo xamante ni. lu yëngu-yëngu yi bari aussi dinañ xam nan la ñuy calibrer suñu liggéey ba xam-xam bi ñu war a def ci xale yi ñu def ko ci. ndax maître CM2 yi ñu ci bari bari bari bari ñu yoroon classe examen yi ñu bari bari grève ñu ñu baree baree grève ñu bon benn grève la ñu observé mooy bu mujj bi waaw te booba ñëpp a ko observé en masse. mais éco xale yi moom vraiment élèves yi ñuy def examen moom mën naa ne vraiment perte ñu lu bëree bëri ci ci année scolaire bi. ba pare aussi programme bi euh, état bi nguur gi wàññi na ko bu baax a baax allégé ko ba nga xamante ni wóor na ni li ñuy joxe ci examen yi mooy li ñuy jàng ndax li nga xamante ni yaakaar na ni njort nan ni. duñ ko mën a def ci classe yi amaana maître bu grève doo ko mën a def yooyu dindi nañ ko ci ci examen yi donc monsieur Gueye ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñoo ngi nii ci école 1 ba léegi taxaw ak euh, benn candidat donc ñu koy laaj nga xamanteni mom moy gis-gisam ci li nga xamanteni mom moy premier première épreuve yi jote génn soxna ci tour bi naka aïssa touba Ba. touba Ba ngeen nek ci examen CFEE donc lan moy sa première gis-gis wala sa première appréciation ci li nga xamanteni mom moy épreuve yi jot ak génn. ah français bu mom neex na tok français bi moom macha allah neex na moom français bi ak condition dëkk bi moom baax na neex na. français ngeen dëkk de. oui. rédaction wala texte suivi de question wala. texte suivi de texte question. texte suivi de boobu noonu mën wax lu neex na. ndax instant bii amagul benn perturbation boo xamante ni yéen a koy jànkuwanteel ci centre examen bi. non. bu fekkee ni daal moo ngi déroulé nii jàpp nga ni incha allah rabi mën ngeen cee génn. oui mën nañ see génn moom. Hmm. ndax seen programme euh, jotoon na jeex ci année bi ba ngeen mën a dérouler examen yi ci la meilleure des façons wala oui programme jeexoon oui donc ñoo ngi lay di ñaanal ko sama jaam ci waat ak euh, beneen candidat sëñ bi nan nga tudd Ousmane Faye Ousmane Faye ñu ñoo fekk la ci centre 1 Bambi Lor donc euh, lan mooy sa réaction bu njëkk ci li nga xamante ni moom mooy examen yi yomb na trop moom ah, sujet bi ngeen dafa jox yomb na sujet bi ci lan la doon wax. texte bi de question. texte bi de question texte bi di wax ci lan. aller ñu gis ni comme ni ma ko laajee sa naataango bi année bi xawoon na am perturbation tuuti yaakaar naa ni loolu noonu amul benn impact ci li nga xamante moom ngeen doon def. non benn impact. déedéet. kon ñoo ngi di souhaiter une très bonne beneen élève moom tamit euh, bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def examen sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay delloo nuyu di la. di la Thierno Fall. Euh, Thierno Faye. Fall Fall Thierno Fall. tey ngeen door li nga xamante ni moom mooy examen yi. examen yi nan la demee ndax disposition yëpp jël nañ ko ba nga xamante ne examen yi dina déroulé ci la meilleure des ñoo ngi di sant di jëm gërëm jëm ñoo xamante ni ñoo doon nekkoon ci examen bi ñoo xamante ni ñoo ngi ñuy jàppale waaye directeur yeeg monsieur ñoo ngi ñoo ngi leen di remercier ci seen encouragement ak seen liggéey ci def nañ ko ni ñu ko waree ab yooyu yëpp. français bi daal yéen ñëpp da ngeen a jugé nii dafa yomb. waaw yomb na waa xaw naa yomb moom. Ah. waaw kon yaa yéen a mu mel ni français bi wala yomb ba nga xamante ni di ngeen ci génn. kii bi waaw ñoo ngi xaat pour mu gën a yomb comme lu mu mujjee lu mu njëkkee demee rek ñu àggalee ko noonu ba ñëpp ñaan ñëpp ñoo xam ni ñoo doon def examen ñu jàll ak jàmm salaam ñoo ñëpp di ko souhaité ñoo xam ni ñoo doon def examen ñu am ak jàmm salaam ba seen waa famille di ko souhaité bonne chance. merci